waa mbégte mi na lool lool ndax keppaaru maam bi émission bi man kon fu ñu ko jëlee dina ci sargal ba mbégte mi yokku na bu baax baax baax baax waaye nag euh, di ñaanal ñu ci nekk yàlla génn leen ci yóbbu leen seen kër ba ñu gisaa seen njaboot ndax ñun tey mën naa ne kontaan nañu ndax lu tax ñu kontaan mooy ñoom dañoo kontaan ndax bu ñu gis nañ mbégte bi mu àndal mbégte moom moo ñu kontaan ndax bu ñu sañoon sax ñun ci mbégte la ñu nekk jàmm la ñu nekk salaam la ñu nekk. tey jii nii bu ñu waa di wax rek ne am na ah, àddina dafa gudd saa te dara jomb am na loo xam ne nit du ne man lii jomb na la wala nit du ne man lii nii du ma ndax àdduna day xëy rek sotti àdduna day xëy rek demee na noonu kon fi ñu nekk nii peut être du seen coobare moo tax ñoom ñu nekk fi suñu fayoon duñ fi nekk ñu wax rek ne nañ leen di fàttali ko di leen ñaanal yàlla génn leen ci jàmm salaam. mais Marlo nga sànni na la xeex nga ne ko ànd ba tey mu ne la instant yi kër gi nan la demee. muy waaj nag incha allahu rabbi nga ne mag waaw di ko waaj war koo dëbb ba mu mokk. <laughs> noo koy waajalee waajal bi day ànd ak ay bongo parce que mag su ñëw mag xalaatuñ bongo mais dafa mel ni yow yow capable tout faire. non non non non loolu yëpp moo ko hmm. la leen ngeen xaar. Hmm. incha allahu rabbi. mais tey ji ana nan nga gisee tey succès Soxna Bator dem ci ay sër ba ji gis ay sër dugg ci uddeg politique bi ñu dem sax mu dina tëkkaleeg amaana koo xamante ni mën naa jeexal ak li ko réew ba nga dégg na ah <laughs> waaw tout d'abord dama remercier sama fans yëpp rek di leen wax ni ñoom awma seen fay ndax famille sénégalaise génn nañu accueillir ko sama moto génn ñu bëgg ko comme ñu awma seen fay waaw suñu demee rek ba nuy ba nit ñi duñu tudd dañ koy sant yàlla suñu borom ah sant ko suñu yaay yuñu jur ak na ñoom liggéey nañ suñu loo xam ne tey nit ñi dund bi tey dinañu bëgg kon di yàlla rek baax a baax a baax nga xam ne moo nekk noonu artiste su soxna botool moo mujjee yàlla moo koy def ci nit loolu la rek. loolu la jaajëfal